asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 7 mai 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay ba nag dafa ñëw tey ci diggante Tapha Tine ak Ama Baldé mu mel ni ki nag combat ba daal sunu lamb dafa jàpp ne lii lan moo tax mu coincé maanaam combat bi lan moo ko tànc boog wala lu ko téye ba combat bi daal te développé wu parce que nag boo bëggee dégg-dégg daal combat bii daal moom li leer ba leer day njaw mu ngi cay wuy di des aw xambin ndax nag sunu làmb nee na Pape Abdou Fall moom la mu bëgg mooy combat bi mu tëgg ko saison prochaine écrit Fallaye bale nag mbir mooma ñoom ñu nga cay xalaat ndax sax ñoom day fi mu nekk nii est ce que bu loolu naree am ndax ñoom du ñu xaar ba saison prochaine rek ñax ñoom daa mel ni daal seen xalaat dafa mel ni daal Modou loo kon est-ce que du ca nekk bu fekkente ne naru ñoo bëri leen ñu xaar ko ba déwén suñu làmb xëy tey dinu ko wax bawal mbooloo moom sunu làmb boo bëggee dégg dëgg moom mbir moomu moom fi mu nekk nii ñoom ci guddi gu bët sa la ñu ne yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey dinu ko wax kenn koo xam ne moom xëy na tey di wax ci yëglekaay bi nu sunu làmb mooy Malick ñaa bi nga xam ne moo nekk fii nga xam ne nii moom mooy ca Yoff Malick Niang daal nee na bu ko kenn wax sax ay waxi forza nee na loolu moom wax ko ko yàq ay wax le te bëgg koo dégg ak ay noppam ndax du adversaire am tey suba waxi noppi moom Malick Niang moo xëy tey ci yëglikaay bi di sunu làmb di wax loolu nee na moom nag pare na nag ngir bare mbër yi mu bëre ak ñoom loolu daal mooy li nga xam ne nii moo di ay waxi Malick Niang vrai mbër yi daal la wax waaye Forza moom da ko caa génne ba mu set wecc suñu làmb xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne tey sunu làmb da caa delsi mooy vingt ans wu lig ni ko laay li nga xam ne nii daal am na ko ci làmb mu mel ni kii nag adversaire ya nga xam ne nii day ñoom la tëgg ñu ngay waxante jén kayre ak coins ku ne yaa ngay wax sa morom génne na day dara du yomb ci biir géew bi loolu la wax kii du Quench Quench ne na ko dey li leer ba leer day jàppal ne bés boobu moom der dëgg dëgg dëgg ngay dajeel waaye caat ak armée jamono jooju ñoom tamit ñu ngay waxante caat ne ko dey dama lay duma avant ba lay daan duma la ba pare door laa daan armée ne ko jàppale ne day dina metti lool lool lool lool ci yow yow dina metti ci yow te bu mettee daal fa ngay mujje xam nga ko yëglikaay bi moo xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko fii nga xam ne mooy sunu làmb mooy benn xale boo xam ne day moom ginnaaw ba mu daane alias Birame di Bulle de Serre nee nag na fi mu nekk nii ngir fas yéene nag ak kii nga xam ne moom moo di ñaqi jariñu loolu moom la xëy tey dina ko wax kenn koo xam ne moom moom it mu ngay wax ku mu bëgg a jàmmaar lool mooy garga dë bu dóor dóoraat nee na ama neex day wala amet dem ñaar ñii daal dañoo war a ñëw nag ñu jàmmaarloo bëre moo gën wër wër loo bi ak ku ne di seet fa nga xam ne ni moom nga bëgg a jaar te loolu taxul làmb ji dem ca kanam keneen koo xam ne moom mu nga xëy di wax mooy boogaa bu écrit face boogaa day combat bii dox ci digganteem ak kii nga xam ne mooy général bu mbaaw boogaa ne na dama koy désarmer ay galon daal laay rocci sànni ko fële wan ko ne nekk comme général tey suba waxi noppi waaye dañuy dem fi nga xam ne mooy leewtoo point net mu mel ni ki nag mburum Grand Yoff ma ginnaaw fa Zarko demee Europe day toog koo xam ne moom bokk na ci écrit ba di mobile mobile nag ñu daal dem nga xam ne nag moo di ca réewum États-Unis yëglikaay ba wala Leewtoo point net moo xëy tey dina ko xamal leneen loo xam ne tamit Leewtoo point net mu ngi nu koy xamal mooy kii nga xam ne nii moom moo di Franc ñu ngay laaj ndax moom est-ce que dina mën a bokk ren ci drapeau chef de l'état bi ndax nag combat bi nga xam ne jël na ko dox ci diggante ma ngeer te Fallou Ndiaye tëgg ko bu fekkente ne combat ba day yegg na foo xam ne nii ca date ba dana laale ak jëm ci wàllum drapeau chef de l'état est-ce que Franc dina mën a bokk ci bi leneen loo xam ne nii day jëm ci mbirum drapeau chef de l'état boobu jàppal Leewtoo point net mu ngi ne day li commencé la premier bala 15 juin daal ca la def présélection ba ku ñëwul day ba date yooyu passé moom jàppal ne moom bu la sees jotee yow perte nga ndax nag bu keroogee sélection ya njàmme da koy yóbbu fa mu ko war a yóbbu koor gi nag dugg na moo tax tey coach Moussa Diop ñu xëy gis ko mu ànd ak Papa Sow ci yëglikaay bi di sunu làmp moom nag day la mu xamal ñëw mbër yi day lu leer la dana leen période koor gi day ku ci jóg naan da ngay entraîner yenn entraînement yi yaa ngi risque sa vie maanaam daal yaa ngi yew buum baat yaa ngi jël buum di ko yew ci sa baat di ko dangal te bu keroogee fa muy yow leen neex Moussa Diop tey moo xëy di wax loolu ci koor gi kon nag mbër yi daal nañu déglu bu baax a baax a baax conseil yi leen médecin yi conseil ak entraîneur yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum sport ndax nag am na loo xam ne ni day yaakaar naa ne du ko jar woor ak ni mu méttee waaye itam ak xiif ak mar nga bëgg caabal nag da ngay entraîner est-ce que loolu du ay risque waaye weeru koor itam loo ci mën a dégg daal baax moom def na ko te itam nag yàlla nañ ko yàgg a woor te yàlla nangu ñu noon su ma wooree du wax nag damay wax ba ne xaaw ndax nag wax moom du mën a ñàkk Ousmane defal lu la neex man damaa woor te dégg naa boo wooree nag da ngay bàyyi lépp mu ndës jàmm gënu ay Ousmane man jàmm lay wër léppi ay moom na ma sori waaye na sori bépp doomu aadama salaamaaleykum mbokk yi sur Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen baalu àq te di leen baal àq di leen ñaanal koor gi la may ñu kàttan guñ ko wooree ñu teewee ko ay déwén yu bëree bëri bëri yàlla may ñu jàmm ak xéewal may ñu wér gu yaram ba ñu mun a matal suñu yéene Babacar ñiy baalu ak ñi nga xam ne ni tamit ñoo ñuy suivre Leewtoo parce que léeg-léeg ñu juum léeg-léeg ñu wax lu leen neexul mais lépp rek dañuy xam ne nit a matul Babacar ñu leen di baalu ak bu baax Babacar nuyu naa la. waa Aïssa comme niñ koy waxee rek nuyoo bi gën a sell rek moom lañ leen di nuyu mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar. ci weeru koor yi nga xam ne teru na comme ni nga di leen balu àq te di ñaan yàlla buur bi mu boole ñu jégal ñu ngi leen di balu bu baax bax comme ni nga ko waxee rek nit a matul des fois ñu wax fi lu nga xam ne nit dina ci gis boppam mu indi frustration te doo ko yëg yaa ngi dégg kon tooñ bu ñu yëg ñu ngi koy jégalu bu ñu yëgul ñu ngi koy jégalu waaw te tamit di ñaan sunu borom bi rek mu defal ñu gudd fan defal ñu wér yaram sunu koor mu nangul ñu ko nangul ko julli ne si àddina bi yëpp te bu ko nangoo tamit mu def ko ngëneel wàcce ko ci àddina bi pour jàmm am si àddina bi waa kàttan gi moom si kattan sunu borom yàlla dinañu ko may ndax yàlla lu mu la digal rek boo ko toppee may na la loo tax nga war ko mën a def parce que sa njëriñ ci ne ndax moom ñu wooral ko aysatu yokkut ci ngóoram dara ñu bañ ko waral itam wàññiwut ci ngóoram dara ndax moom mooy mooy waaw moom mooy borom suuf seeg asamaan si moom moom lépp lu fiy tooy moom la lu fiy wow moom la kon daal ñu ngi koy ñaanaat ndax moo ne ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen kon nu ngi lay ñaan nga kàttanal ñu ba nu mën a woor wori ci jàmm ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke weeru koor di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Babacar ñu jublu ci waxtaan bi ak li nga xam ne tey yéenekaay yi andi nañ ko muy tey euh, Ama Baldé Tapha Tine bi nga xam ne ñu ngi koy wax euh, boobu ba léegi mu coincé mënul dem suñu lamb du ñu xamal ni promoteur bi ñu ci doon dégg mi Pape de Fall tamit bëgg na ko mais fu mu toll nii déwén la ko bëgg yóbbu waa Kër Fallaye Baldé ñoom xamaguñu. lu leer ñi ngi nii di xool ndax Modou Lo la ñuy jëli déwén wala ñuy xaar mooy tafaatin ñoom daal xam nga ñu bawal mbooloo itam ñu ngi noonu daal ñu ngi dans le flou comme ni ñu ko waxee mu nekk loo xam ne tamit mun nañ jàpp ni Babacar est-ce que combat bi dina yomb pour ren ji waa du ma yaakaar mu mën a nekk ren parce que li tax tamit am na loo xam ne waxoon naa ko te dinaa ko waxaat olof dañ ne bët du yenu ay satu mais xam ne lu bopp atam ndax tey bu fekkente ne Pa Abdou Fall mi la ko bëgg ah, Ama Baldé tamit ñoom ñuy ñu xalaat ne ñoom bu fekkente ne saison prochaine la ñoom li ñu mën a def mooy xëy na xaar wala nangam sangam loolu xel nangu na ko Pape Abdoul loolu loolu mu xalaat tamit yaakaar naa xel na ko ah parce que combat Ama Baldé boo ko tëggee ren mook Tapha Tine nga tëgg ko mu bëgg am ci saison ren bi néew ma mënta nekk de mais mën na xat trop trop li ci war am ci wàllum communication publicité yu mel ni ki noonu dafa am lu muy laaj ak date yeeg yooyu loolu lépp dafa jar a bàyyi xel ba nga xam ne ni tamit doo jël sa ay dizaine de millions ko dugal ci mbir ba pare ay satu

te kon day nekk loo xam ne année balance lay mujje te vraiment souhaité wuñ ko woon li moo tax des fois man mbër yi dama leen di dolli leen rek sama xalaat la ah. des fois bu saison ubbeetee bu ñu leen seet seetee ci yenn combat yi su yenn kase yi tegee pour mën nga profité jël ko bëre parce que mbir mu ne na mu dikk rek pour pour mën Aysatu mhm. noonu nga ko war a mën a gérer daal waaw. waaw Babacar parce que loolu lay tax doo euh, bàyyi mu kët nu ne kët nga jéem a bëgg lijjanti combat pour sauver saison blanche euh, keneen koo xam ne tam Babacar euh, mu ngi ci guddi bu bët setagul muy maali Niang moom tamit ñëw na ci sunu lamb di wax ay adversaire am mais nee na daal nañ ko wax lépp ba mu des ki nga xam ne nii mooy Forza. waaw loolu day wax na ko parce que Malick Niang moom mbër la bi nga xam ne mën nañ ne ah, bokk na ci champion làmb ji wane na lu tax loolu am ci làmba kij na nag ci làmb ba ko Ama daanee ba tey muy ay at yu baree baree bëri bëriwul actuellement nag yëg naa ne moom wala boog yëg ñu gis ci li ñu gis ci moom ci ay sorte bëgg na am combat bëgg na bëree waaw Forza nag mën nañ bu moom ci xalaatam wala li mu jàpp mooy da ko dépassé ci làmb waaye man dama jàpp ne ñoom ñaar pour man war nañu mën a bëree parce que li tax mooy euh, lamb dañ na garab ci kaw lay fekkante lamb mooy doxee noonu moom nag am na droit choisir leneen parce que loolu tamit moom lay engagé parce que moom mooy bëre moom bu ko neexee ne yeneen adversaire ñoo ma gënal Forza loolu kenn du ko ci blâmer wala nga wax ko ci dara waaye Forza tamit boo xoolee bi mu bi mu jógee daanuwul daanuwul ba ñëw ni ko pakala daane mu jógewaat fa ñëw amaat beneen faxastalu si Jordan waaye bu jógewaatee ba tey ay victoire la teglante boo xoolee mook l'an 2000 mook Super Étoile daaw mook Abdou Diouf ca ca ca ca Diourbel Leewtoo ñoo ko tëggoon kon moom itam yaakaar naa ñëwaat na pour amaat place am ndax mbër yooyu mu daan du ñu ay cuune mais nag Malick Niang am na droit ne kat nañ ñu wax keneen wala ñu wax ma sax Talla Ndiaye waaye sauf Forza loolu moom am si droit mooy choisir waaw Garga 2 Garga 2 combat boobu ba léegi Babacar moom nee pare na tey jii pour daje ki nga xam ne ni mooy ama neex wala Ahmed Deme daal pour bëre balaa saison bay daj. waaw loolu su ma nee su amee day baax parce que moom mbër la bi nga xam ne nii dafa bokk si làmb nekk xale moom itam vraiment nekk ku mën a bëre nekk dóor dóoraat garga de ñooñu muy wax muy Ahmed Deme wala ama neex war nañ ko mën a gestu ah, bëre ak moom pour man bu fekkente ne euh, parce que làmb tamit toog fi nar a def année balance actuellement amul combat te su ma jumul daaw la mujj a bëree moo garga dëb combat bu jaadu la bu war a neex la ama neex tamit war na mën gestu ba du garga de bëre parce que lamb la ñëpp ñoom ay ay lañ des nag xëy na am fu ñu nga daal nit ki loxo ah, ngeen bëre loolu pour man amul inconvénient benn bi des may man déggoon naa sax combat fan yi mook Pape xaw ma fu mu mujjee am na promoteur bu ma waxoon ne mu ngi bëgg combat boobu ah ñu koy ñaanal yàlla mu am combat mais di ko ñaanal mbër yëpp ah tamit boo bëree moom yaa si lamb ji mais boo toogee bëree to ay satu sori lamb koo xam ne ni bëriwul euh, ren moom dafa décider dem États-Unis mi nga xam ne ni mooy mobile 2 ñu gis ko ni mi ngi États-Unis depuis fan yi mu nekk loo xam ne Babacar daaw euh, saison bi demeewul noonu ci moom ren bëreegul moom jàpp dem na États-Unis day dem entraîné ñëwaat wala day dem toog xamaguñu daal yàllaa xam fu mu toll mais dem na daal États-Unis Babacar olof yi de dañ na taal bu téye tàkk côté bu ne lañ koy uppee ngir nga mën a am tàkk-tàkk comme nag moom it mobile wax gis nañ ne ci yaakaar naa li li war a ci mbër gis nañ ko si moom saf na xorom macha allah man na fecc su feccee day neex yaa ngi dégg euh, ko face à face am dara dàqu ko su bëree itam day neex mais ci biir bëri dañuy gis ne que des day may des yu bëri yu des si biir bërim ba daaw boo xoolee TFP bi mu duggoon ñu bëri joxoon nañ ko favori mais fa mu mujjee mooy mu jóyul fi nga xam ne ni moom la ko nit ñi doon xaare xëy na loolu bu fekkente ne moom moo ne moom ba tax mu xalaata dem États-Unis pour yokki leneen ci boppam war loolu war na mën ne bu fekkee tamit dafa dem pour liggéey loolu tamit lépp mën a nekk parce que comme li ma la wax rek mbir moom boo làmbee fii doxul bu la neexee nga làmb fa des am na ay mbër fi nekkoon bi ñu gisee ne làmb ji doxul ci ñoom dañu dem à l'étranger wuti fa seen doole parce que tamit perte dis perte lesteg aysatu wala nga ñàkk bubu ñàkk ceen nga bant ba ko yeewoon damm moom yooyu wóorul waaw yooyu daa wóorut balaa caag daal bu lii doxut nga wëri leneen lu mën a dox rek waaw waaw waaw Babacar defe naa ni loolu moo gën a wër parce que nit ki moom da ngay tenter sa chance fu nekk rek ak fu sa nekk ñu dem ci ki nga xam ne mooy euh, Franc parce que daaw gis nañ euh, li mu apporté la équipe de euh, Dakar bi ci li nga xam ne moo nekkoon drapeau chef de l'État ren ñuy laaj na Franc dina ñëwaat parce que am na combat ak Nger combat bi mois de juillet la war a dem est-ce que promoteur bi diggante boobu dina régulariser du régulariser dina mën participer du mën participer foofu lañ toll ak Franc Babacar. waaw loolu day waxtaan la daaw boo xoolee région de Dakar mosuñu gagné drapeau chef daaw lañ koy doog a gagné te boobu Franc yaakaar naa moo nekkoon seen capitaine te am na lu mu ci suyee ndax moo nekk si contrat boo xam ne da ko lii ak a bëri ak ngeer bi CNC pour mu participer bu affaire bi a jafe mais lu mu ci mën a doon rek xëy na mën nañ koo waxtaanee parce que lépp làmb la ah, ci biir làmb la war nañu mën a waxtaan xool nañ koy trouver solution ba nga xam ne bu fekkente ne la possibilité bi soxlawaat nañu franc waa Dakar mu war a mën a dem pour défendre couleur Dakar te yaakaar na équipe de Dakar mënuñu bañ a soxla Franc ndax itam vraiment li simple bi gis nañ ne wàcc yi mu ci jot a wàcc gis nga ni mu ci wanee boppam bari ki démb ci mujj 3 millions euh, ci mu nekk mbër bi nga xam ne li a moom la ñu Moussa Diallo muy technicien sportif moom it day ñëw ci mbër yi nga xam ne nii dañuy entraîner ci euh, période koor gi mu leen di xamal tamit ñuy def noonu risque ngi ci Babacar. waa risque moom moom day bu ko waxee xel war na koo mën a nangu parce que euh, dañuy wax ne mënaata xam la ca dégg ba moom muy nuur ba ca ban ba ay satu parce que nag am na loo xam ne ni ki ko xam bu ciy wax dañ ko war a dégg lu bàyyi ko xel bu fekkente ne moom technicien la moom Moussa Diop moom mu xam lan danse su nekk mu leen woor di def sport baaxul yaakaar naa kon mbir yi war nañ ko mën a déglu bàyyi ko xel te itam yaakaar naa boo xëyee maanaam 6 heures du matin wala 5 heures du matin ba 19 heures si ngoon lekkuloo naanuloo yaakaar naa di nga perte énergie ak lu mën a xew énergie boobu nag boo ko moom yaakaar naa ne amuloo benn droit wala lu la boobu noonu nga dem naa da nga ciy entraîné loolu moom yaakaar naa ne même bu la ko médecin waxul sax wala sportif de haut niveau war nga xam ne loolu am na ay risques ci nekk kon daal ñuy wax mbër yi li ñuy def nañ ko xalaat bu baax a baax a baax te déglu techniciens yi ñu wax ak ñoom ndax un mois yàggul daal pour man waaw ah un mois yaagul mais Babacar ñi am combat est que seen xel may na leen Babacar ñu tëdd di xaar koor gi jeex te xam ne koor gi su jeexee rek ñu dugg ci leneen. ah waaw ñoo jël combat nag di Aïssatou xam nga ñoom ñoo kenn obligé wu leen ñoom ñoo gis ne koor gi ñëw na ñu nangu jël combat kon nag dañuy nangoo rek boole la ca nekk ci ay conséquences yu mu mën a doon ñu gérer ko xool ni ñuy def seen planning bu fekkente ni guddi gi mën nañoo yee seen ay muscle def réveil musculaire rek yooyu def tuuti contact ñu def ko mais lu mu ci mën a doon daal ñu bañ a bu intense ba ëpp moom mën na jur leneen quoi te defe naa nag bëree daanu moo gën leneen. waaw moo gën wér gu ñàkk sa wér gu yaram. Ah, waaw doy na war de waaw loolu moom moo waaw. dañ leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm rek euh, ci li ñuy waajal muy seen combat yee koor gi ñu xam ni ñu koy allier rek euh, ba lépp mën a yemb si kàttanu yàlla Babacar ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ni ñooy suivre Leewtoo TV di bëggee ki nga xam ne mooy Mame Talla Chéri Lebu ci caméra bi Ousmane si montage bi équipe Leewtoo TV bi yëpp ñoom biram yàgg Ndey Kumba Euh, luka Grand Massar képp koo xam ne yaa ngi Leewtoo rek ñu ngi lay nuyu bu baax di bëggee képp koo xam ne rek yaa ngi suivre Leewtoo TV Babacar di nuyu monsieur Niang bu baax tamit. waaw Moussa Niang sa séeri ah ñu lay nuyu Moussa Niang di nuyu sa bébé mu Mohamed euh, Ndiaga di leen nuyu di nuyu ñu suivre ñëpp ah, di leen balu ak comme ni nga ko waxee lépp nga ko équipe bu ñu ngi nuyu ñëpp mais dañuy jël nuyu bi toog ko ci loxo DG bi muy Pape Thialis Faye ak tonton Diaw ñu nuyu ñu ñëpp ah, di ñaanal ñëpp bu jàmm di baluwaat ñëpp ak rek comme ni ñu ko waxee sànq bi ñuy ubbi di ñuy suivre tamit comme ni ñu ko waxee rek ñun ñu ngi leen di nuyuwaat du ñu tàyyi si leen nuyu ñoom Ousmane Diop xam nga maam Modou Gueye taalibi sëñ Mbaye si Abdou gaa yëpp ah ñoom Benzema dem ñoom assan Sall Argentine Gora Seck Afrique du Sud xam nga ak ki nga xam ne nii Ndongo Fall Italie Fallou Niang Maroc ak waa Dubaay duñ leen fàtte ndax ñoom itam dañuy suivre sénégalais gambien yi nekk foofu waa Côte d'Ivoire ñoom Seydou Gambi fàttewuñu kenn nuyu nañu ñëpp tuuti yaay Sarr tamit di ko nuy di ko ziar di ko ñaanal jàmm di ko wax mention spéciale moo Khady Rose Ndiaye depuis Allemagne Baye Sall Dieng depuis Paris soxna Anna Cheikh Bintou bu baax sama gars yi ñoom président Massamba Dieye di leen balu àq ci koor gi ñoom Khadim Badara laay Lamine Issa ñoom ñëpp nuyu naa leen Marème Balla di balu ñëpp ak ak ndaak séri biram ñing xam nga biram ñun ñoo ñun waa groupe baax ñoo ko may ñoo ko may soxna kon ndaak madame ñing ñu ngi lay nuyu di nuyu bébé bi maam Cheikh di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram barke yonent bi sallallahu xol bu sedd yaram bu sedd yàlla na ko yàlla def ci ñëpp barke yonent bi waaw ñu allah